أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen chaîne YouTube yi di yaatal xeltu yin ak eh, MDTV asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñi ngi am mbégte fas ànd ak yéen ci seen jotaayu weccoo xalaat tomb bi ñu bëgg waxtaane mooy gone ak ni ko boroom bi waajale ngir suñu bëggee mu tënku ci yoonug njub mu mën a yomb waaye itam yitte ji nga xam ne doomu aadama te mooy kilifa yi nga xam ne ci seeni loxo la yàlla jaarale tuut tànk ba yitte jiñ war a taxawe ngir njub googu mën a sax ci gone gi mën a dëgër mën a yokk muy fitro te kenn ku ne xam na ni gone léeg-léeg ñu ne tuddul gone waaye mooy ku am ñu ne liir tuddul liir waaye mooy leer am ñu naan xale tuddul xale waaye mooy xeleel xeleel nag mooy koo xam ne dañ ko war di xelal di ko conseiller di ko orienter di ko jubbanti yooyu yépp nag day delluwaat ci rek li ñuy wax fitro fitro nag euh, ci ni ma ko mën a misaale day mel ne yàlla def na ci doomu aadama bi nga xam ne mooy soog a gane àdduna mbooleem matukaay yi nga xam ne suñu ci sukkandikoo rekk liggéey ci nañ ci war a liggéeye doomu aadama bi dina nekk ku mane ak boroomam waaye nekk ku juboo ak ay moroomam cig njub cig njub nag loolu mooy fitro kon mooy prédisposition yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a nekk jullit dëgg dëgg dëgg Euh, tabaarakallaahu euh, yàlla subhaanahu wa taala wax ko ndax dama naan ci mbaax yàlla suñ boroom day feeñal day feeñal ak mbaax yonente bi sallallahu alayhi nag day feddali wala muy leeral kon yàlla ci alquraanam day feeñal mbaax gu kenn xamutoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ci ay xadiisam day ñëw di feddali mbaax gi yàlla feeñaloon wala mu koy gëna gëna leeral euh, yàlla wax ci téeréem bu bi ne baada audu billahi min alshaytaani arrajim fa aqim wajhaka liddiini xanifa fitrata allahi allati fatara annaasa laa tabdila li xalqillah dalika diinu lqayim walakina akthara annaasi laa yaclamuun kon loolu mooy fitra nga xam ne ab soññee la rekk bu yàlla di soññee ci ne njaboot gi dey saay ñu màggee yore melokaan wu dëppoo wut melokaan wi ma gërëm du ci man yàlla waaye ci yéen la ndax mboolem matukaay yi nga xam ne buñ ci sukkandiku woon liggéey ci nañ ci war a liggéeyee euh, njaboot gi dina nekk njaboot gu baax jàppale ne tànk bu ne ba muy soog a ganee àdduna indaale na ko euh, nga xam ne ni ma mën a misaale matukaay yooyu ak ni ci yàlla wanee ak mat nga xam ne moom rôle ba mu war a jouer yépp jouer na ko nga xam ne lépp lu manqué rek mi ngi manqué ci doomu aadama bu ma leen koy misaal day mel ne wàllu tabax day mel ne wàllu tabax kenn ku ne xam ne ne ciment moom lañ koy doyee mooy tabax waaye bala ñu koy tabax nag bala ñuy tabaxee ciment faw ñu tooyal ko jaxase ko ak suuf kon ciment dañuy jël ciment jaxase kook suuf jaxase kook béton jaxase kook ndox tooyal ciment boobu nga xam ne nag euh, mélanger nañ ko ak lañ ko war a mélanger ba tooyal ko bu fekkee jëfandikoo nañ ko nañ ko war a jëfandikoo danañ ci mën a defar ay brique brique yooyu itam ñu taqale ko daal di ciy taxawal bâtiment waaye su fekkee nag dañ koo tooyal ba noppi ginnaaw ba ñu ko mélanger ak yañ ko war a mélangeel au que ñu def ci brique wala ñu taqale cay brique xanaa ñu bàyyi ko noonu rek di ko seetaan ngelaw li bu ko ngelaw li bàyyee yàgga wal ci kawam bu ko ngelaw li toppee yàgga wal ci kawam bala mu koo bàyyi rek day mujj nekk benn janji nekk benn montagne xeer bu dëgër dëgër boo xam ne la muy lore sax moo ëpp la muy jariñ ndax fa muy nekk képp kuy dox ba jub ko danga ko teggi ngir moytoo fakkas bépp oto bu doon daw ci yoon ba jub ko itam dana ko teggi ngir bañ ay pënaam bënn wala yeneeni yeneen ci ay paan arrivé ko kon nag ciment nañ ca liggéey muy def ca effort ba tabax ca ay brique taqale brique ya yëkkati bâtiment ba ciment bi mën a am njariñam kon ciment boobu ñu tooyal nag mooy fitra mooy fitra yàlla bu indee matukaay yi ba mu mat prédisposition yi tax nit ki nekk ab jullit faaw itam ñi yilif gone gi yàlla jaarale ko ci seeni loxo ñoo war a def ay yitte liggéey ci gone gi luy tax mu nekk jullit xaqan moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi ci ak feddileem mu ñëw ne kullu mawludin yuladu ala alfitrati salima fa abawaahu yuhawwidaanihi wa yunassuraanihi wa yumajjisaanihi kon yàlla noppi na ci gone yi yàlla noppi na ci liir yi sogaa juddu ndax indil waaleel na leen indi waale na leen ak i matukaay yoo xam ne suñ ci liggéeyee rek danañu jub kon nag gone gi su màggee doon laneen day wane ne ay waajuram wala ay kilifaam ñoo fayir seen mission ci effort yañ waroon a def ngir xale bi mën a conserver prédisposition yooyu ñu man ko itam consolide maanaam mu téye ko waaye itam ñu dëgëral ko loola lu jara bàyyi xel la waaye nag soo gisee jamono jii euh, booy seetlu xale yi ñu ci bëree bëri li islaam soxla ci ñoom ñaare pour nga gis ko ci namumate mate wala sax pour nga gis ko ci na mu gën a baree jafe na lool mooy ni ñuy jëfandikoo diine ak nituk diine ni ñuy jëfandikoo diine ak ni ñuy jëflanteek nitug diine ndax boo xoolee suñu dund ci àdduna su doon ak ngan la day mel ne diine moom day gatandu gan gi ak di ko gunge waaye daal bokkul ca nganale ga moom daal ngan gi gàttandu ak xàjjee ak gunge wax naa ñetti baat nag muy baatu gàttandu baatu xàjjee baatu gunge ngir mu gën a leer ci misaal su fekkoon président de la république da doon gane kenn dañuy jël nituk diine ci misaal ne ko waaw yow de yaay taxaw ca bunt ba liñ la sas daal mooy bu président ñëwee gàttandu ko ubbil ko bunt bi bàyyi ko mu dugg waaye nag bul ànd ak moom dugg waaw kon gàttandu bul ànd ak moom dugg nga xam ne du fekkee fa ñuy joxe président ay bernde fañ koy joxe ay lekk fañ koy joxe ay fruits fañ koy joxe ay jus moom daal du ca fekke dara waaye nag lu nar a gàllankoor ngam gi ñu woo ko waaw maanaam bu kenn ñëwee nar coow wala nar faa indi xuloo wala xeex wala am ku war a dugg koo xam ne amul benn rang social benn statut sociale bu ko war a may mu approché président de la république bu naree dugg moom mooy dox diggam ak dugg.